jërëjëf nga ne seen TV ah yéen seen patron candidat Mbadou moo la yebal ci question bi. en tant que journaliste. mais moom candidat la. Bougane. waaw baax na mais na bi. Euh, première question bi nga ne. Euh, dara kenn tënkuma man benn buur laa am mooy yàlla awma ñaar awma ñett benn laa am ci boobu laa placé l'entièreté de confiance li ma ko dénk ci sama confiance amul lu des lu may dénk keneen leer na donc kenn tënku kenn moomu benn buur laa am subhaanahu wa te dafa am lu mu wax lan la waxat wa fa huwa hasbu nee na celui qui place l'entièreté de sa confiance en Allah Allah lui suffit jarul boole dara maintenant nga ne ndax silence su Macky bi ça me met mal dama bokk ci ñi ko ko digal xanaa leer ko ko digal digaloon defu ko bi lii bi Latif Coulibaly bindee livre Latif Coulibaly yéen a koy fàttali bi mu bindee livre attaqué Ablaye Wade attaqué Karim ne ay sàcc lañu et man attaqué wu ñu ne man maa bind livre bi puisque dama bëgg jël place su Ablaye Wade et cetera Ablaye Wade jóge Màkka ñëw ne ma livre bi wooy qu'est-ce qui se passe Ladjif Coulibaly nous attaque toi il t'épargne et cetera ma ne ko mais il m'épargne puisqu'il n'a rien à dire contre moi j'ai rien fait. moi, moi j'ai rien fait. Moi, je ne fais jamais quelque chose d'illégal. Et la première exigence que j'ai de mes collaborateurs quand je m'installe à une station de responsabilité, c'est de leur dire, même si je vous instruis de faire quelque chose d'illégal, refusez. Je ne fais jamais rien d'illégal en tout cas en conscience donc silence bi dérangé ou parce que dama ko ne yow yaay chef d'état xam est-ce que xam ngeen lan mooy chef de l'état yéen non je crois qu'au Sénégal on s'amuse on ne sait pas ce que c'est le chef de l'état mooy définir la politique de la nation c'est-à-dire moo leen di wax yéen ñëpp li ngeen sañ ak li ngeen sañul mooy defar loi et règlement jox ko majorité assemblée nationale ñu voteel ko alali réew mi moo ko war a sàmm jën yi nekk ci géej gi ñun ñëpp ko ko bokk mais ku mu joxul licence de pêche doo fa napp rab yii ci àll bi ku mu joxul permis de chasse doo ci rëbb garab yii ci biir àll bi ku mu joxul permis de coupe boo daggee garab eaux et forêts la suuf si seen kër yi ngeen am bu nekk ay titre foncier bu ko soxlaa day def décret d'utilité publique nangu ko ci lu dagan bu ngeen liggéeyee seen alal ba pare mooy seet lamu mu cay dagg comme impôt dugal ci keesam mu ngi toll ren ci plus de mille milliards de francs CFA par ba nuppi li mu leen wax ku ko ci jëfewul moo yore kàttanu teg la daan bu ko neex police armée gendarmerie tribunal kaso c'est-à-dire man sama costume bi bu ko neexul bu ma génnee fii wax fii lu ko neexul mën naa woo alkaati bi lekk fii commissariat ne ko na ma convoqué quarante huit heures du ngeen ma gis mën na maa yóbbu rek teg ma ci benn siis ne ma toogal fii dafa am lu ñuy seet dafa am lu ñuy wax vérification d'identité ndax yow la puisque gars yi dañoo doy waar ndax Idrissa nga wala doo Idrissa maanaam waxi tappale mais am na sañ-sañ bi moo tax Ousmane Sonko dafa dafa dafa dafa dafa dafa juum bi ma ko déggee mu wax ne dem naa ci armeel yi ziyaar sama bàmmeelu papa ñaanal sama yaay ñaanal ma euh, ma def sama testament euh, euh, le président de la république c'est du gatsa gatsa, il va me tuer ou je vais le tuer. Mais si le président de la République veut le tuer, il passe pas la passe pas la nuit. Et lui, il n'a pas les forces pour faire ce qu'il dit. Mais Macky a les forces en toute légalité. La preuve, lan la waa BIP def coppet yóbbu dara la ci mënul bon donc erreur la loolu man nii xam nga nu ma daan def man njomborton la njombor njomborton la damay gars dañuy ànd ak man way idi guerrier bu ma egsee ba ci barrière policier yu njëkk yi ma napp leen ano ah non li n'a droit damay jàll manifester et bu ma rombee ñooñu waa BIP ñëw xàmmee naa leen ñoom waa BIP ñooy ñooñu garab ak seen affaire yooyu ma xool leen xoolaat leen ne chef bi yow loo wax mu ne ma fii ngay yem ma ne ko c'est pas normal ah maa ngi mais loolu mooy jàmm après nga def defal naa question bi après nga def nga def sa affaire ma ko ma ko ma ne ma bi may dem di def tournée tournée nemmeeku tour bii muy def tournée nemmeeku tour bii muy def maa ko njëkk def ba ma eggee ba Kaolack war a dem fanaan kër Serigne Moustapha Bassirou alkaati yi foofu la baare ñu nekk fay négocier affaire bi xumb lool gauche yi yëngatu way président président gars yi filmer waaw yow loolu nga ci am bu ko romb boo ko rombee dañ lay làpp te làpp baaxul ci kilifa <laughs> baaxul ci kilifa xam nga euh, mon grand frère Moustapha Niass ba léegi photo boobu mu gàddoo xeer toog moo ko toog puisque pour sénégalais loolu du cëram man élection bi gën a bon bi ma def mooy 2012 wax naa leen ni 88 laa nekk première fois directeur de campagne électorale de l'histoire du Sénégal 88 2000 ma nekkaat directeur de campagne 88 ba 2000 maay directeur de campagne 2000 ma gagné. avec la marche bleue doon naa candidat ñetti yoon ñaar yëpp 2007 ak 2019 maa jël deuxième ñii ne maa jël premier ñu sàcc ko Macky nag nee na d'accord ñu sàcc ko mais ba tey même bu sàccee c'est parce que daa mën a sàcc mais bu ma amoon mbooloo mu téye loxoom ba du mën a sàcc du sàcc donc damay nangu ne gagné na ma ba tey moom laa wax ñoom. Euh, Sonko Madické Niang ak Issa Sall bi leen dajalee sama kër après les élections de 2019 ma ne ni contentieux ni violence jaru ko élection moom bu la bureau de vote rombé pare nga waaw léegi Farba Ngom mu am euh, possibilité sama représentant ba nekk Agnam mu jox ko cent mille ne ko yow bu ñuy wàññi bu la fi fekk kooka jël cent mille yi dem yendu këram waaw léegi au lieu mu am euh, cinq cent voix mu yokku ca quatre-vingts voix wala soixante-dix ñu ne taux de participation proche de quatre-vingt mais lu tax lu ko ko mën a tax def c'est parce que amuñu taxawaay mais defu ko Thiès defu ko Dakar fa mu ñu ëpp doole dëgg-dëgg yi ëpp doole la jéem a def mais loolu c'est pas juste mais bon ci dara donc ñi ñu jàpp am na ci ñoo xam ni li ñu def d'ailleurs seen patron wax na leen ko Ousmane Sonko nee na leen euh, euh, seen poste dof yi ngeen di def di wax yenn wax yi nga xam ni seen jàpp day yomb na ko ba mais ay xale lañu nekk Facebook defe ni kenn gisu la kenn déggu la xanaa xamoon ni Facebook boo ci duggee boo waxee buum ngay tax ngay wax ñeneen yi da ko di ko jot buum googa la alkaat yi di topp ba egg si fekk la fi nga toog dafa am buum gisoo buum gi mais buum gaa ngi loolu mooy wifi man maa indi internet Sénégal donc bu ngeen amee réseau xam leen ni maa ko yëg bu ngeen lekkee ceeb riz parfumé Idrissa donc ñooñu def lu garaaw ana ana waa Sen TV ñi ci def lu garaaw moom xawma ci ñoom dara justice rek mais ñi nga xam ni xaleele moo leen ci dugal ak yenn yi dinaa def lu ma mën wax waxuma mën naa ci dara dama wax ne qu'on m'entende bien parce que yéen journalistes yi des ngeen ngeen defar affaire yi di fa am mais na teg rek li ma wax y a deux pouvoirs y le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire lu pouvoir judiciaire tëral pouvoir politique am na sañ-sañu far ko le pouvoir politique a la capacité d'effacer tout ce qu'établit le pouvoir judiciaire à travers deux mécanismes notamment le mécanisme de la grâce présidentielle et le mécanisme de l'amnistie mais man soppuma amnistie trop Puisqu'on n'amnistie pas un individu, on amnistie des faits. C'est-à-dire bu ñu bëggoon a amnistier Karim Wade tey ak Khalifa Sall dañuy amnistier sàcc alalu Sénégal détournement de deniers publics keneen koo xam ni def na ko te jàppaguñ ko wala gëstooguñ ko day rëcc foo ngeen comprendre c'est-à-dire kii amnistier sax. mën na cee laxasaale yeneen yu ko ñor moom te egseegul wala xamaguñ ko pour fóotaale ko moo tax man d'accorduma ci amnistie mën nañu gracier mën nañu réhabiliter à travers la réforme du code électoral mais euh, ñu topp la ba gis xaalis bi tànk bi fa mu ne kooku beneen affaire la tu es un voleur, c'est tout. Tu dois être condamné puisque tu as volé l'argent du Sénégal. Donc, le pouvoir politique peut effacer ce que fait le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir politique n'a pas le droit de s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. c'est-à-dire bu juge bi xesee ubbi dossier ah président lenn rek la mën mooy abal ko ay gendarme ak i policier ak i soldat bu ko laajee pour que kenn bañ koo bundu ca liggéey ba muy def c'est-à-dire prêter la puissance publique au pouvoir judiciaire pour que le pouvoir judiciaire accomplisse sa mission sans pression ni entrave et ku ñu woo nga bañ mu prêter la puissance publique ñu jëli la indi par man bu doon man la 21 mars xaw ma 16 mars du am du am puisque ci fajar ji ci lay jëli Ousmane Sonko yóbbu tribunal te ña koy jëli du leen mën a të te kenn du yëngu kenn la puissance publique elle est là pour ça elle est là pour ça maintenant elle doit être entre les mains d'un vrai démocrate koo xam ni du ci jublu lor nit ñi da ciy jublu aar nit ñi puisque ki ci jublu lor nit ñi moom ñaanal ko pour mu jot ci moo diw ay neefare ci wurus ñoo yem donc c'est ça. Ah,